madame le maire wax na léegi ba tudd fi Khalifa Ababacar Sall sama doomu baay la ñu koy ñaanal yàlla waaye waxtaan tam bu ñu jaawatle ay mbir président la république dafa am mission bu mu yor du moom mooy def justice surtout ci réew moo xam ne réewu démocratie la ñaareel bi yërmandeem fi mu ko mën a doxalee mooy bu procédure yépp jeexee or tant que justice mu ngi ci procédure man mënuma intervenir boo leen di xool suñu wax grâce walla lu mel noonu day fekk justice moom pare ba tëj yëfam su boobaa nag constitution may na président bu ko neexee walla bu ko bu ko neexee mën na indi ab dogal waaye pendant que juge yaa wax avocat président de ci dugal loxoom loolu Sénégal du réew boobu waaye dégg nañu bu sa euh, dama rek li nga xam ne la charte justice ak ni justice di doxee ak wàllu exécutif la législatif la